internationale. Scénario international. si leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci réew. Seneinfo.net internet ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey mercredi di 21 avril 2021 ñu fas yéene ko tàmbaleeg xibaaru Sénégal. démb nag ci tàkkusaan ji ab accident bu métti moo am moo am kon fële ca Njongoloor mu nekk ci commune bu Diouroup ci région de Fatick kon bi wetu tàkkusaan daal di jot ci la accident bi am ba sax am ñetti nit yoo xam ne kon ñàkk nañ ci seen bakkan lu jege ñeent fukki nit itam am si ay gaañu gaañu ñu ne accident bi rek li ko waral ab camion la boo xam ne kon da doon dépassé benn oto daal kon moom moo dal ci lii di. bis boobu nga xam ne kon mu ngi bàyyeekoo woon euh, Casamance ñi di sax euh, autorité administrative kon jot nañ dem euh, fi accident bi amee ngir nemmeeku li fa xew ñaari poste yoo xam ne ay post avancé de contrôle lañ koy woowee nga xam ne kon ñii di waa mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC ñoo ko moomoon waa l'armée bu Sénégal nag daf ko détruire kon l'armée bu Sénégal daf ko yàq ci biir <coughs> kon l'armée Sénégal euh, jàpp leen ne yàq na ñaari poste de contrôle avancé yoo xam ne waa MFDC ñoo ko moom loolu nag euh, ñu ngi ko amal gannaaw bi nga xam ne kon ñu ngi ko def gannaaw bi xam ne ngi amal ab opération de sécurisation boo xam ne kon ay fan ngi nii ñu koy amal foofale ca Bignona kon ca Casamance li nga xam ne nag euh, poste yi nga xam ne sax moom lañ yàq poste de contrôle rebelle yooyu mu ngi nekkoon ci localité ñuy wax Boussonor ak fële ca Balindor Balandir maa ngi jégal bu dee nag lu jëmm ci information yi ñeel jàngoro coronavirus ministère de la santé tey annoncé na lu toll ci 74 nouveaux cas wante im ci geneen wet ga am na 68 yoo xam ne ñoom jot nañ wér 11 patients nekk nii ñu ngi réanimation ndax seen wér gi am dafa sooxe lool dem itam am na koo xam ne ñàkk na bakkanam te li ko sabab di jàngoroy coronavirus bu fi jàngoro yi duggee ba léegi nag Sénégal compté na lu toll ci 39 910 cas positifs mu am 38 668 yoo xam ne jot nañ see wér 1096 ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu nekk nii am na 145 patients yoo xam ne ñoom ñu ngi sous traitement bu fekkee nag lu jëm ci wàllum vaccination bi lu toll ci 380 665 personnes ñoom kon jot nañ leen ñàkk ngir kon muccal leen ci jàngoro jàngoroy coronavirus. bu ñu paree Sénégal dañuy dem ci Afrique deewu ki nga xam ne nag moom moo fi nekkoon maréchal nekk itam président. bu Tchad di Idriss Déby Itno ba léegi daal dafay jur ay wax daal dafay jur ay wax yu bëree bëri ndax am na ñoo xam ne sax ñoom am na ñoo xam ne bu ñu jàppee ne moom comme li ñu wax rek dafa deewee gannaaw bi nga xam ne kon demoon na ci bokk ci benn xeex boo xam ne l'armée bi ñu ngi koy xeex ak rebelle bi ñu ngi koy xeex ak rebelle yi mu jëlee ci ay gaañu gaañu jaar fa dee am na xam ne dañoo yaakaar ne daal kii di Idriss Déby Itno daal dañ koo assassiné am na ñu bëri kon dañoo croire lii di thèse assassinat kon ñoom la ñu gëm ndax ñoom sax nee nañ ki nga xam ne ab commandant la euh, bu opération militaire nekk sax président de la république nekk chef suprême des armées mu ne moom moom moo war a nekk élément bi nga xam ne daal moom ku difficile euh, jotam jot ko daal du yomb kon ci xeex jot ko euh, warul yomb ba tax na sax ñooñu yaakaar nañ ne euh, kii di Idriss Déby daal kon dee bi mu dee ab assassinat la ba léegi sax ca foofu la la ñuy la ñuy des gannaaw bi nga xam ne kon kii di Idriss Déby génn na àdduna dafa am ab conseil militaire de transition boo xam ne dañ ko fa amal ngir ñu téewandi pouvoir bi euh, wante nag ki ko jiite sax di doomam di doomu Idriss euh, Déby Itno di it noo bokkoon sax ci garde rapproché wante nag li ñu nemmeeku mooy daal lii di conseil de transition ba dafa bëgg a accaparer pouvoir bi dafa bëgg daal jël pouvoir bi daal euh, aaki moo ko ci li ñu gis ne daal ci yoon boobu la ñu nar nekk jël pouvoir bi wala boog bañ a respecté li nga xam ne moom mooy constitution boobu la am foofu la ca Tchad te ñu révisé woon ko sax 2020 euh, rek xibaaru bitim réew benn ponk lay doon euh, dañ koy kon États-Unis lay doon fële ci Amérique gannaaw bi nga xamee ne nag euh, lii di justice américaine ba kon reconnaître na coupable kii di Derek Chauvin nga xam ne kon moom moo jëloon tànkam teg ko ci loosu afro américain boobu ñuy wax George Floyd ba sax moom mujjee woon ñàkk bakkanam kii di Derek Derek Chauvin nag gannaaw bi nga xamee na sax moom tekk woon nañ ndombal tànkam ci police ba nekkatul woon policier mu ngi woon kon mu ngi doon xaarandi euh, mu ngi doon xaarandi kaso wante kon ñu jàpp ne rek fi mu nekk nii kon dañ ko jugé coupable maanaam kon euh, jugé nañ ko coupable de meurtre justice justice bi daal justice américaine daal nangu na ne kon euh, kii di policier boobu di Derek Chauvin moom moo faat kii di afro américain boobu di George Floyd nit ñi nag kontaan noonu nañ lool gannaaw bi nga xam ne kon. yëgoon nañ loolu ñu bëri génn nañ di manifester seen contentement gannaaw bi ñu yëgee kon euh, xibaar bi ni mel buñ sukkandikoo nag suñu naataango yu BFM nee nañ ki nga xam ne moom mooy ex officier boobu di euh, kon di Derek Chauvin ñu ne daal mën na am ñu teg ko fukk ba fukk ak juróomi at maanaam 10 euh, ans ba 15 ans de prison boo moytuwul mën na kaa tëdd li ñu dee ci xibaar yi rafet seen teewlu ñu jox dëgg jaa ngeen jëf.